exemple mën nga déposé xaaraat trois mois wala six mois quatre mois sa say du génn kon bëgg nañu normaliser secteur ba nga xamante ni mboolem koo xamante ni livreur la dana am plaque d'immatriculation ñu sécuriser secteur bi ba nga xamante ni ñi ci nekk di yor ay deux roues di agressé ak di sàcc alalu jàmbur yi di ñun suñ bopp avec l'aide de la police ñu fexe détecté ba ñi nga xamante ni ñoo ciy nekk di def ñaawteef ñu mën leen a xam xam fu ñuy teg suñ tànk assainir seen métier bi ma ña ba ña leen rax ñu ah, bañ see bokk maanaam agresseur yeex yooyu loolu bokk na ci bëgg-bëgg livreur yi. lii la euh, mooy wax ca lii moo war a doon débat bi dëgg. parce que tey boo xoolee lu jëm ci mhm. wàllum métier livreur euh, ña ca dugg maîtrisard ba ma nga ca. Mhm. ku am licence ma nga ca. Mhm. ñi amoon liggéey te perte ko ci Covid ba ña nga ca. ñu yoroon doon faj bu mu gàccee seen kër yi te tey mënatuñu ko ña nga ca donc lay am solo mooy. ñu jéem a xool nu ñu mën a formaliser seen secteur bi mu di ne yombalal leen nu ñu mënee am ay papier yu leer mu di carte grise am visite technique am assurance mhm. li leen di may ñu mën a daw parce que ñoom li ñuy daw lépp c'est pour la survie de toute une famille donc lii mooy li nga xam ne moom moo am solo il faut encadrer accompagner ces jeunes la may leen ñu mën a tey nekk ci li nga xam ne lu formel lay doon mhm. ñu mën di ci daan seen doole gannaaw amuñu liggéey bu leen mën a may ñu mën ko defati dundal seen njaboot nu mu waree je crois que loolu mooy li nga xam ne moom mooy am solo parce que il faut pas oublier que organisation internationale du travail nee na mhm. fii juróomi at yi ñu jëm plus de deux cent millions de personnes dinañ ñàkk seen liggéey. Mhm. donc loolu boo ko xoolee ak li nga xam ne jot nañ ñàkk seen liggéey ñu war ko rattrapé waat balaa ñu koy rattrapé waat fii ak cinq ans encore dix ans. donc cela veut dire que lii mooy priorité membre mhm. xëy mi ci ndaw yi ñetti junni ci ay ndaw di yëngu ci wàllum euh, livreur bi métier boobu waaye nag ay jafe-jafe lañ si jànkonteel nga jot ay kayit ñu leen bëggoon jàppale leen mhm. dañ leen war a sax carte livreur mun na nekk nga xamante ni bii euh, am na am na saytu bu ñuy def ci yow am na fu ñu lay identifier bu weesoo permis de conduire mais livraison métier la mhm. loolu moo tax d'ailleurs ñi ci nekk ni am na ñu ñu ci jaxasoo ñu bokkul ci ñoom di def agression kuy agressé moto nga yor kuy këf saagu jàmbur moto ngay yor léegi nag euh, carte yooyu ñu am dina tax sax ni leen ni leen ni leen police di noggutoo ak ASP yi mu mën a wàññeeku. parce que dafa mhm. leen di gën sécuriser. te état bi daf coore veillé ci ñoom nag parce que moment bi muy wutale ay ndaw liggéey. Mhm. liggéey yoo xam ni joxul benn ndaw bu am ambition espoir liggéey boo xam ni salaire bu yem yemamaay ngay am. liggéey boo xam ni ñaari at lay yem liggéey boo xam ni ci jëmbat garab lay yem ak ay teg ay pavage ci ndaw lu am maîtrise ndaw lu am doctorat xam nga loolu joxul ndaw espoir euh, loolu dina tax lii nii da leen di dimbali ci projet boobu ñu am pour utal ndaw ñi liggéey mais maam dañu am gouvernement boo xam ni day bàyyi askan wi ak boppam gouvernement boo xam ni dafa gaaw ci réagir bu fekkente ni bi intérêt politique mu ngi ci li koy firndeel mooy euh, boo seetee tey fi si fi réew mi toll bu gouvernement ne mënut a contrôler yàpp njëg gi mënut a contrôler diw njëg gi mënut a contrôler ceeb njëg gi euh, ak yeneen ak yeneen yoo xam dafay dugg ci réew mi et barke dem bi ñu defee benn opération def benn descente ancienne piste bi muy opération bi ñëpp rafetlu ñaata nit lañu jàppandoo. tout est que manque junniy nit. 800 mmh. et quelque. mu nekk opération bu am solo boo xam ni feeñal nañ fa lu nekk prostitution ay agresseur ku doon exploité ay xale ku ne feeñal nañ ko fa ak yeneen liggéey yoo xam ne jaarul ci yoon pour wax la ne état mun na lépp mun na lépp te antan na ko mais dafay mel ni day seetaan askan buy souffrir et ñun dañoo doyal dañoo doyal ci système nazi système bi nga xam ni moom la Hitler doon doxale Hitler ba muy jàngal ay politique am àdduna politique ay ñi mu àndal ay partenaire am dafa suqi ginaar ba mu set sànni ko ci sedd bi ci neige bi. Hmm. galaas gi jàpp ko jàpp ko lu ëpp une de temps ñu continuer di réunion rek bi ñu dugalaatee ginaar gi bi ñu ko sànnee lekk kenn déggul mu sab kenn déggul mu yuuxu li ko yitteel dong mooy ñu sàng ko ak lekk gi mais foofu la ñuy yóbbu tey Sénégal maam fu ñu foo dégg séddale ceeb xale yaa ngi daw. Hmm. fu ñu wax liggéey. tey bu ñu ko annoncé woon tey tey balaa ngoon nga am téeméeri junniy demande mais xooxloo googu ñu xooxloo askan moo war a dakk dañu war a def partage de gâteau jënd roppalaan jënd bateau tabax château ñu partager point stratégie ci wàllu habitation jël yeneen i habitation yi ñu am ay avantages jox ko ay entreprises